chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen baax a baax si ni ngeen di àndee ngi koy def pour euh, di nag euh, nax nit ñi ngir nit ñi daal jàpp ne nit ku baax la ndax acte yi nga xam ne mi ngi koy def euh, mu mel ni kon noonu rek la continuer di defee ngir nag mën a am rek sympathie waa kër Thiendella Fall yëpp te mën naa ne mi ngi ci yoon ndax dafa ñëw rek ci ngénte ki nga xam ne moo di Ulay Anta dal di fay nekk di def lépp loo xam ne rek nit ku baax rek moom moo koy def mu pare euh, waxatuñ muy defar kër gi pour ñoom alors que loolu muy def seen kër sax du ko fa def mu mel ni kon euh, li ñu naan euh, nit bu amee benn objectif lu mu ko jaral rek maanaam volonté daal mooy lépp ndax boo amee volonté rek lépp loo xam ni yootu nga ko rek danga koy mën a daan ndax daf lay jaral lu nekk ndax tey Penda Wurus bu ñëwee bay raxas ak bale parce que rek am na lu mu bëgg ndax bu dee këram la du fa def confiance ci Penda Wurus ba tax mu koy euh, muy araftu ki nga xam ni moo di cendeela ngir mu def tànk ci moom waaye cendeela moom gis nañ ni jàpp na ni Penda Wurus mënul ci moom euh, dara dafa am confiance ba ëpp ci boppam mu mel ni nag kon suñu moyuwul rek mbir yi mën naa rek mujjee euh, foo xam ne du leen neex ndax ki nga xam ni moo di Penda Wurus mayu leen fu ñu yakkee seen naak ndax yaakaar naa dugg na leen bu baax a baax ndax bu ñëwee tey ba ñëw si xew bi nekk fa ba ñëpp ñibbi moom mu nekk ki mujjee ñibbi wane ne rek kon dugg na leen dugg boo xam ni comme ku leen xam bu yàgg la jàll ci Ouleye Anta Ouleye Anta nag moom commencé na di xalaat lépp li nga xam ni moom moo xew waaye nag gis nañu ni dafa am confiance trop ci boppam te loolu nag mën na koo yàqal lu baree bari olof Njaay day wax naan ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la te moom Ouleye Anta niñ ko gisee day mel ni kuy naagu ndax jàpp na ni moom këram euh, keneen rek du ci am euh, place ku dul moom waaye nag li mu xamul rek mooy pexem jigéen dafa am euh, doole te jigéen du rëbb sooy te Penda Wurus bu bëggee ki nga xam ne moo di jëkkëram góor moom góor rek la foog mën na a am ñu jàll ci mère Penda mère Penda nag moom yaakaar da koo xaar ba mi a du tëdd muy loo xam ni kon yaakaar naa lu metti la la Penda Wurus waroon waroon koo féetee moom mi doomam moom yaayam moom moo ko féete foofu noonu ndax gis nañ ni moo koy toppatoo di ko lijjanti di ko défendre di ko defal lépp jàll ci ulay anta ulay anta nag moom euh, dafa bàyyi rek cendee la daal di gunge Penda Wurus loolu nag pour won ko ni dafa am ci moom euh, confiance waaye nag commencé na rek daal di am du ndax jàpp na ni rek ki nga xam ni moo di euh, Ouleye Anta dafa sob ku sob nag yaakaar naa ni war ngaa xaar ci moom lu nekk nag yaakaar naa ni risque la mu koy bàyyi ak jëkkëram ñuy dem waaye nag confiance itam euh, ci la lépp euh, aju te mu am na confiance ci jëkkëram ba tax na nag mu daal di koy bàyyee ak moom waaye nag moom mi nga xam ni moo di Ouleye mi ngi nax boppam ndax jàpp na ni Penda Wurus bëgg na ko bëgg boo xam ni du nangu jëkkëram loolu nag yaakaar naa erreur mënu koo weesu ñu jàll ci Penda Wurus Penda Wurus nag gis na ni Thié bokkul ak yeneen xale yu góor yi wute na torop ak yeneen xale yu góor yi waaye loolu nag taxu koo découragé benn yoon ndax mu ngi bëgg rek daal di continuer ci fi mu jàpp ngir nag mën am euh, li mu bëgg mu mel ni moom jamono ji leen la bëgg te mooy yàq famille wam tas sëyam daal di jël xaalisam ndax jàpp na ni nga xam ni moo di Thié Ndella dafa toroxal ndax lim ko bàyyi mu dem moom kese mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di Penda Wurus li mu xamul rek mooy góor ñëpp yemuñu ndax bu yëpp yemoon am ñu gedd seen cër ñu jàll ci beneen séquence lu ñu naan euh, soxor noppalul borom ña iñaan dafa sonn dafa tardé ndax benn wurus moom soxoree say tax na buggul say am dara loo xam ni moom amu ko ba tax na tissu bi xam ni may nañu ko ko mu teel a yeewu dem sànni ji ko loolu yëpp nag yaakaar naa bon rek moom moo ko waral ndax bu nekkul woon xolu iñaan bi mu am ni ko noonu yaakaar naa mi ngi nelaw waaye du xalaat di def loo xam ni métti na say waaye say ku ne xam na ni moom it làmmiñam ndamul ci poosam te it nag ragalul penn wurus ba tax na nag bëgg na ko rek daal di dem yee ndax jàpp na ni moom moo ko jël waaye nag yaayam comme toujours rek mi ngi koy défendre ak di ko jëlal paar ndax moom buggul benn yoon lu naqari Penda Wurus te donte nag xam na Penda Wurus moo jëloon tissu bi waaye nag ñemewu koo wax say ndax moom lu neex Penda Wurus rek neex na ko te it nag da koy défendre saa su ne kon mbokk internet yi foofu la ñuy yem ci épisode 8 bu série nitu intérêt jox leen dig daje si beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàttee bës ci cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à